aujourd'hui affecté par une crise sans précédent, le Ghana a demandé aux grandes sociétés minières de vendre à la Banque centrale ghanéenne de l'or afin de constituer des réserves de lingots qui serviront à importer du carburant. Le Ghana, producteur de pétrole, à cause de l'incompétence de l'administration ghanéenne, aujourd'hui malgré la production et l'exportation du pétrole, le gana importe du pétrole. Et encore ce qui est pire, c'est que toute importation est payée en lingots d'or parce que le CEDI est à terre. C'est la monnaie la moins performante selon Bloomberg. Et ceci, c'est quoi? C'est dû simplement à une incompétence d'une d'une administration. Maintenant, Aujourd'hui, au vu de l'état de l'endettement du Sénégal, le président Macky Sall a mis le pays sur la même trajectoire que le Ghana. Un bouleversement économique qu'est le Sénégal. Il a tellement endetté le Sénégal au point d'avoir violé les chartes de l'UMOA. Si rien n'est fait, suivant l'exemple du Ghana, de la Tanzanie et du Libéria, pour mauvaise gestion et mal gouvernance, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Bien. avec une telle situation de l'endettement du pays, avec une telle situation, ça c'est très important. C'est-à-dire les Sénégalais doivent connaître la vérité. Ce n'est pas ce qu'on nous chante. En fin de semaine dernière, nous avons vu le président de la République, qui ne connaît même pas les chiffres. Moi, je ne sais pas, il est entouré par quel genre de, de conseillers financiers. faut aller derrière euh, les gens là de cette Donc un président qui connaît même pas les chiffres, la réalité des chiffres de son pays, qui nous parle de d'endettement de 14 euh, 000 milliards, etc. Mais les 14 000 milliards, comme il l'a dit, dit que le Sénégal s'endette pour faire des investissements. Mais d'accord, on est d'accord sur le principe d'endettement. Les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde. Les États-Unis. Mais nous, nous ne sommes pas comme les États-Unis. Les États-Unis, un pays producteur, exportateur. Ils sont premiers en tout. Premier producteur de tabac, premier producteur d'arachide, premier producteur de premier exportateurs du monde, avant la Chine. Mais ceux-ci peuvent se permettre d'emprunter. Mais nous déjà, nous sommes un pays pauvre, très endetté. Nous faisons des PPTE. Sur les 255 pays que compte le monde, 25 pays, le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres et les plus endettés encore. Maintenant, nous avons un président qui vient, en plus de notre endettement dont nous souffrons, qui surendette encore le Sénégal pour faire des réalisations et expliquer aux Sénégalais qu'il est un travailleur. Loolu moom en classe on l'appelle autre chose que je veux pas dire ici parce que j'ai du respect pour mon président quand même. Comment est-ce que le Sénégal soit à un niveau déjà d'endettement? Nous continuons jusqu'à présent de payer les dettes de Senghor et de Abdou Diouf. Le président Macky Sall vient, il dépasse non seulement Senghor, et ça c'est des tableaux qui vont vous le montrer. Sur ce tableau-là, vous allez voir de donc temps de Senghor, 1970, temps de Senghor, euh, jusqu'à 80, Abdoulaye Wade. Donc ça, ça c'est ça, ça c'est les de Senghor. Donc ce tableau-là, Vous avez ici les chiffres en milliards et ici vous avez les années. Maintenant, regardez comment ça c'est second. Jusque-là, c'est second. Ce sont les dettes. Jusque-là, c'est Abdou Diouf. Regardez le président Macky Sall quand il est <laughs> ça. Ça, tout ça c'est second. Abdoulaye Wade, Abdou Diouf. Regardez le président Macky Sall. Mais ce qui encore très inquiétant, c'est que ces dettes ont été prises entre 2019, donc la dernière élection, et aujourd'hui 2020. La plupart de ces dettes, ce tableau-là, ne pas ailleurs. Ça de la Banque mondiale. GDF, c'est-à-dire le Global Development Finance. Ça vient de la Banque mondiale. les dettes du président Macky Sall. 2019, il a tellement de dettes, simplement pour montrer aux que c'est un travailleur. Il a le Sénégal. Il a dépassé même les limites de l'UMOA qui sont fixées à 70%. Jugez vous-même. Pourquoi tout, tout, tout cet endettement-là en, en, en, peu d'années Pourquoi tout Même si les taux d'intérêt sont, sont, sont très faibles, il devait au moins respecter la charte de l'UEMOA. Le président a violé la charte de l'UEMOA. Il a les alertes de la Banque mondiale, du FMI, qui sont venues à plusieurs reprises au Sénégal en 2022 pour lui dire arrête, arrêtez ces dettes-là, les subventions, au de créer des emplois, au lieu de créer, et ça je le dis, de la, de, la dette extérieure, Ça, c'est le crédit brut, unité et devise locale courante au Sénégal. Regardez, c'est le même schéma. 1965, Abdou Diouf, 80, Abdoulaye Wad, 2000, Abdoulaye Wad jusque-là. Regardez le président Macky Sall. Mais c'est ça, c'est ça la réalité des chiffres. Pourquoi le président doit nous porter à ce niveau d'endettement Simplement parce qu'il un troisième mandat litigieux et veut expliquer aux Sénégalais que c'est un travailleur et qu'on doit le laisser finir ce travail. Quel travail Vous donnez autant d'argent à un doctorant en économiste, il fera plus de réalisation que le président Macky Sall. Parce que c'est beaucoup d'argent quand même. Je vais donner encore un autre tableau plus intéressant. Ça, c'est l'évolution de la dette au Sénégal en chiffres. je vais parler de la dette par habitant c'est-à-dire yéen ku ci nekk ci yéen li nga xam ne yoreel nga ko Sénégal ci suñu président yi li ñu leb am nga ñoom dañuy dem di leb ñoo xam fu ñuy dugal xaalis bi mais suñu lebee ba pare kuy fay du Sénégal seen impôt moo koy fay léegi seen impôt yooyu ak contribuable li ñu leen di dagg ci taxe salaire boo am dagg nañ ci taxe xaalis boobu yëpp la ñu nar a jël léegi fayee ko bor yi nga xam ne moom la ñu suñu président yi bàyyi vous pensez que ça c'est sérieux léegi xool leen ku ci nekk ci yéen lan la yore lool temps wu temps wu Abdoulaye Wade euh, Abdou Diouf bi muy dem sénégalais bu nekk yoreel na 63 627 ñi ab ñi ñi Abdou Diouf lépp 63 627 Abdoulaye Wade bi muy dem en 2012 sénégalais buy nekk yoreel na ñañu leb seen bor yi dëkk yeeg banque mondiale ak euh, euh, Paris club de Paris et cetera ak seen xari xarit yi Abdoulaye Wade bi muy dem dafa bàyyi sénégalais bu nekk nga yoreel leen deux cent trente deux mille deux cent six francs sénégalais bu nekk bi Abdoulaye Wade di dem xool leen le président Macky Sall bi mu ñëwee. on est à 722 000 francs chaque Sénégalais 722 000 francs chaque Sénégalais sept cent vingt deux mille francs mais lii la leen di naxe guddi ak bëccëg liggéeykat la mi ngi def ay réalisation fekk dafa dajale boru àdduna bi yépp xëpp ko suñu bopp yi nga xam ne suñu doom yi seeni doom ak seen sët sax ñu ñëwee régime bu fi ñëw dina dina fay boru président Macky Sall à vous de juger vous Sénégalais est-ce que lii lii jaadu na ci réew boo xam ne dañu ne il y la transparence am na bor yoo xam ne sax assemblée nationale même su amee prérogative dem lépp au nom du Sénégal mais am na bor yoo xam ne au moins mais discuter ko ci ak assemblée nationale assemblée nationale loolu moo koy mooy njëriñam soo xeebee assemblée nationale nga dem ci conseil économique économique et social xanaa conseil économique sociale boobu war nañ fa gis ay kàngak yoo xam ne yu xariñ ci mun a xool ndax war na jël bor wala war mun ñu jël bor mais conseil économique et social gis ngeen ko ah abattoiru politicien yi la conseil économique et social yu sérieux da ngay jël ñu xareñ des économistes xale yu tuuti ngay tànn yóbbu leen ci conseil bi lépp loo xam ne def na ko ci wàllu koom-koom mu ñëw ànd ko xale yi ne nii la ñu war a def xale yi jox ko bët parce que moom c'est un je pense que c'est un on a fait l'IST ensemble Et il était dans les hydrocarbures sans spécialisation la parce que l'IST ne forme que des généralistes sans spécialisation ñu yóbbu ko Petrosen il n'a fait la politique durant toute sa carrière nu quand on était à l'IST chaque mercredi est allé aux aux aux réunions politiques ñu toog di jàng donc il ne connaît que la politique mais su ñu la joxee réew da ngay am ay kang ay kang yoo xam ne wóor nañ leen ñii suñu leen gisee xam nañu économie te Sénégal ñàkk loolu Sénégal dafa ñàkk ay ay ay kam yoo xam ne Sénégal dafa ñàkk. est-ce que Sénégal dafa ñàkk ñu jàng ñoo xam ne mun nañu toog ci wetam mais non regardez c'est ce qui entoure le président Macky Sall génn ba ànd ak nit bu ñu naw parce que ñu bi ñu nekkee ci cabineem sax nangul woon ñu jege ko mais c'est ça problème du Sénégal léegi ma ñëw ci wolof tuuti ci li nga xam ne wax naa ko ci ci France conférence de presse bi li ko li ko waral tey mooy dañu jëm ci dañu jëm ci ay bis yu am solo ci histoire du Sénégal mooy lii nga xam ne feeñ na muy pétrole bi ak gaz bi sénégalais yëpp ñi ngi def seen xel ne Sénégal am na pétrole ak gaz dinañ ci gis ñoom seen yokkute loolu naxee mbaay la ndax tey jii gisuñu ñun ci suñu jàngat lenn loo xam ne le président Macky Sall teg na ko ci jéego boo xam ne su pétrole bi ñëwee dina tax indi yokkute Sénégal te pétrole dama koy yàkkamti dama koy fàttali pétrole du ressource boo xam ne du jeex ba abadan nekkul par exemple comme euh, énergie solaire énergie solaire tant que jant mi ngi fi am dina am énergie solaire pétrole melul noonu moo tax ñu tuddee ko énergie non renouvelable suñu pétrole bii ñu am mun na doon fukki at mu jeex mun na doon ci ñaar fukki at mu jeex mun na doon ci fanweeri at mu jeex am na tey ñu amoon pétrole ci ay réew yoo xam ne tey ji seen pétrole jeex na takk bon ñun comme xamuñu pétrole bi ci ñaata at lay dem war na ñu fagaru ba nga xam ne su jotee ñu war a mun a seet naka lañ koy doxale loolu nag moo amul ci réewu Sénégal amul benn structure boo xam ne benn jéego boo xam ne président Macky teg na ko bu ñuy wan suñu pétrole boobu su ñëwee ñun ñi sénégalais dinañ ci jëriñu amul bon loolu moo waral conférence de presse bi pour may fàttali waa Sénégal pour may yee waa Sénégal ne bu ñu def comme Ghana bu ñu def comme Libéria bu ñu def comme Tanzanie réew yooyu ñoo ñu ëpp pétrole ba seen pétrole feeñee seen gouvernement yi dañu dem di jël ay bor yu bëri parce que dañu ne su pétrole bi ñëwee dinañ am luñ ko fay ba pétrole bi ñëwee ba egsi ba ñu commencé ko produire xool nañu ne seen bor yëpp pétrole bi moo ko fay ba koom-koom bi nga xam ne yaakaaroon nañ ko ne dinañ ko gis ci ñoom dara la ñu gisul loolu moo waral tey ji gana soo xoolee gana tey jii dafa dellu ginnaaw ci problème mu économie te Ghana ñoo ñu ëpp pétrole Tanzanie ñoom ñoo ñu ëpp pétrole Libéria ñoom ñooñu ëpp pétrole mais tey jii benn ci dëkk yooyu doxul moom la ñu wax malédiction du mal malgérance la parce que pétrole bi bi muy laate ñëw amuñu benn structure boo xam ne tëral nañ ko Tchad rek moo ci sove te Tchad li leen sove mooy que Banque mondiale dafa ñëw gérer leen seen pétrole mais tey jii ñi ñuy jël xool leen gouvernement boo xam ne ñi ngi génn ci ay scandale scandale bërki démb ñu épinglé ay ministre épinglé ay DAGE épinglé ay directeur épinglé lu nekk mais léegi administration boobu ndax ñun dinañu mën a gérer suñu pétrole moo tax Macky Sall dafa war a dem dafa war a dem parce que yoreetul réew mi ñi nga xam ne moom la ñu yaakaaroon en tant que chef d'État alors lii moo waral ma def conférence de presse d'abord li ñuy def wax ne euh, le désespoir de la le